الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر قاسك الندى وكب ومن شر نفاسات في الهكل ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار آه. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لا الحمد بسم الله الرحمن الرحيم آه. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسول الكريم كل دفع defal lu كي ah danga إمام بيوخ loolu la imaam bi wax kon ñaan boobu lañ ñëw pour ñaanal ko yal na ko lépp lu ñu ci ñaan yàlla na ko yàlla nangu lépp lu ñu ci juum yàlla nañ ko yàlla jéggal yàlla jéggal rek lañu ñam lañu am ci suñu borom ñaan suñu borom jéggalu suñu borom suñu borom nee nañu ñaanal le ñaan le ma ma ngeen jéggalu ci man man maa moom lépp dama leen di may te ma leen di jéggal kon yàlla nañu yàlla jéggal yàlla nañu yàlla saxal ci diine lislaam yàlla nañu yàlla saxal ci tarixa Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu taala anhu yal na ngeen defal iman ak taqwa yàlla musul ñu bépp xeetu saytaane ak balaa yàlla defal ñu benn siraatul mustaqima ci daraja rasulullah sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli ala sayyidina e téléphone am mu yaalu koy téléphone am wotinan jeni e das e tubakutan ni bro fay naati jang ye ni mun ke alo maari ala fana ye tele masa tala ye téléphone an jo mbe haajo hanje kono aɓe si tala ye loya haajo nin jara ay ni be tankali seytano nin kata ni nambaro ñun suñu ñëw wi fii jàmm la ndaxte Babacar ture lu mu def ci ñun loolu moo waral ñi ñëw tey jàngal ko fii Yacine man mi wax ak yow ak ñeneen ñi nekk fii ñun yëpp ci kaso la ñu nekkoon nekkoon nañu foofu ñeenti at juróom benn weer xamuñu ko mais dafa jël suñu mbir xeex xeex ba yàlla may kon dam ba ñun ñu génn kon bu ñu génnee dañ ko war a ñëw jàngal ko yaasin ñaanal ko lépp lu mu ragal ci àdduna yàlla na ko yàlla aar moo tax ñu ñëw ak ilimaan yi toog ilimaan bu Roofay ak euh, bu Linjaan ak ilimaan Toubacouta ñoom yëpp ñu ngi fii ak xale yu jigéen ak Ilimane Koboda ñoom yëpp ñu ngi fii loolu moo waral ñëw bi fii. bu yàlla defoon ñu ne Babacar Touré am na ku mu yàlla indil ñoo boole leen waa Toubacouta et eh, depuis bu ñu ko déggee am na suñu benn sama benn rakk mu nekk foofu mu ngi si turu Babacar eh, Ansoumana Diame presque ñoo ñoo collaboré ak Babacar Touré ba mu ñëwee waxuñu indi yàlla indi nañ ku nga xam ne. ko ñu war a jàppale ci Babacar Touré pour dimbali suñu waa mbokk yi eh, bu mu ñëwee yëgal ñu wax bi vraiment kontaan nañu kontaan nañu kaddu boobu moo tax eh, depuis bu ñu déggee kaddu boobu chaque jour bu mu yàlla indee pour ñëw tag toog wax ak ñii dañuy dégg kaddu bi dañuy joxante ak suñu rak suñu rak boobu muy Ansoumana Diémé eh, moo ñuy joxal kibaar bi moo ñuy wax ak Babacar Touré mooy indi kibaar bi ñoo wax ñu foofu à Dakar. chaque jour bu bés bu ñuy def réunion bi réunion bu ñuy def wa tabakta sama kër lañ koy def siège yi yëpp sama kër lañ koy def amuñu fuñ koy def sama kër lañ def siège bi yépp motax vraiment vraiment eh, mënu ma wax dara Ana contane rek contane rek contane eh, rek Li. motax ma ma tew teew eh, jang alcorane bi wacc kamila bi comme ça bu yalla défé su ma dimanche bi ñëw war nañ def réunion bi sama kër. yàlla def na ma ne il ma xaar ma xaar teew bi fu ñuy wàccee kaamila bi comme ça fu ma dellu man ne ko man sax fekkee naa wàcc kaamila moo tax fu mu ne nii mun ma wax dara ana kontaan bi rek. kon nag boo yàlla dogalee ba lii am ñu am ku ñu taxawal si loolu boo ñuy génnee si fu ñu nekkoon noon si xat-xat boobu ñu nu am ñu fayam lu dul ñaanu ko rek te ñaanam bu soobee yàlla du fii. ndooku ñool wala boubacar touré ani a kafuñomal be kata clédor kata ye min kentolu ye alal be joola dool fana man jooro soto comme imama a fo ñaame anin dool min fota jan tol fana naata jan pour ka ala daani alal fana saal ma koy fen o feŋ i hamita men na ala sawo timbandi ila dooko fana ala sa sikandi comme ala ye a fo ñaamen ako atelka ka mol sikandi atelka ka mol jindi alma aye sikandi sikandi mi ye lon i be se ke ti la kabilol fana seda ha feŋ fe ye mi hami la duniya kono alma la so ke ye tanka kata niŋ kata tol la e, i be duniya kono i be duniya mooñaa to alma ala se kanta mooñaa ani daañaa ani bulol ani siŋol alma ala se tanka siŋ jawol anin da jawol anin ya jawol alma ala setan ka ah, wala wala tana be na jam se kuma bani ani quartier e, fenkol délégation min nata ya tul tol ñindiyamuta jan nyameta do ɓe tiñaro kela oton kontanta bake contano muyala man dandula soto ha ŋe jay ŋe konton a ah, tombi amambande ala aɓe alabulu duwawde wo luŋo luŋ mbakanne ha ni wolen tole sama nga nyin leke me duwa o lungo lunom mbaka mo muye bondi kolea kono ila dunia se betia ila dimbaya fana se se yirwa alman tol fana ala tol fana wo ma soto ala la joro ala ba kelale ate ani akoma be inshallah bi jaydi mustafa al karim wala tan bedana ya assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kon nag ñu ngi leen di ñaanal eh, yan tamit mi ñëw tamit ñun tamit ñu ngi leen di ñaanal yéen ñëpp xaji xeeji ngeen si ñaan bi parce que yëpp lu baax ngeen dem wonee ko nit ñi ñu dégglu ko ndekete def lu baax dafa am jëriñ ñu koy ñaanal tey guddi bëccëg ñaanam ñu ngi si ñun yapaalo di alupe tu ukana duwe duwe kila jijalo karangi karangi yasi yoke ban ya so ne bukan ku gaba di bukun dinga ne yakila eh yiwule matira sunane man sana ku ma'ruf kafiu fa in lam tajid fa ma tukafiu fadu lahu ata annahu tara annahu kafatumu eh rasunan anosan akani majaka lange no chamo nore no chamo matina kani kan jan nane baro baiti amjebe chamo awfa mujjum mudduwo nudduwo ɗugduwo eko afa ngama he bara omo tinaba je fa fa jamo e bara abaj bara nya duwa yana senam ɗo nana tama jam e duwe kila lolu jaalo almamoɓe tate eh, moustapha manga attini jan tuɓuro ɗi ganiya kila ko jaalo ɗike sumbu kila ko jaalo e man ngolen kanuwa fati e law duwa to duwe kila e ko seeka ko ka baba o tuburom ka kan aram benum yeki kano ni man umaŋam eno e eh, yok kam man kujo e eh, ulani nan la jem eh, nan sawa fu baje profile wala tubakuta nan nanji jojum ni karan jaji banjo na wula duwa kuti wala kamba te kan e tema meti nono sanji joji kem moji la meno nono ni kan duwa ji banjo na wula kuti wala kambo te kan kukur e kada e eh, woto e eh, jisasal famiye mi surtout mi kañatate mi jiriñeno matimo mokkam me no ko nu jaalo dia e eh, du kulimama ko juupe ɗi e suketi bro fay ɗi e suketi bakuta ko jaalo dia ɗi délégation ŋe manko joodi kulimama pour duwoy kadi sigen soon e duwoy kilanu ka ñaban ña warno heno kakara ŋa duwara ŋe e mo kano comme des salve fan fan fan fan e mama ka jalo ko kala mbeɗo mankan duwe emte ka te jone ha jeela te ka noon emte jone ha jeela mo teñiyem ala ko te kane emte pour mo teñiyem tuɓro ɗumɓe barka o ko fangi kandi ɓoroko ɓukila emte nde pooyi emte pooyi tam ne gori mbaɗo bako jeeye keɓ emte nde kuribo ndemite eyi mbatta aribo ndemite aw emte fe pooyi emte te pooyi nde wuli simaya nde wuli eju l e s u t e r a e d i n d i m b a y l i tuɓurom kamɓe mbar ka ɓ o l i o